mais est-ce que le cadre bi évolue également dans faciliter facilité on est dans le cadre de la CDAO, par exemple est-ce que vous devez tenir compte de cette démarche. li may pour moi am Sénégal. oui sama dîner. La la loi CEDEAO est la loi sénégalaise pour la la libre circulation est valable à trois mois au-delà de trois mois madame, 90 jours Dès bi nga vous fait demander fay titre de séjour. d'accord C'est la loi. Mhm. mais xam nga dama un problème depuis 5 ans maintenant on a des agents administratifs, mhm. on a des fonctionnaires publics qui ont appliquer la loi. En fait, Philippe Marquet, moi, madame, am fermeté où la loi bili la wax Et c'est ça qui n'est pas normal. Mhm. Je n'ai pas de problème avec les étrangers comme nous ne bëgg pas lowé ñen ce que j'ai un problème c'est madame, attitude bi sama état bi nga xamné manam moma moma mhm. yor état bobu man mom pour respecter les lois qui sont votées. Et ces lois là heureusement que le daf ko rejoindre les mains maintenant les am solo am solo que les sénégalais ils wax combat parce que aussi quand tu luttes pour que nous reste pour politique migratoire mm-hmm. en même temps tu luttes pour la souveraineté nationale la souveraineté territoriale tu am. souveraineté commerciale am parce que si un lu fi étranger de ñëw nii dafa concurrence déloyale par rapport aux commerçants et aux marchands ambulants sénégalais tu ñeneen ñoo xam du ay sénégalais.

lu la dignité nationale bi nga war préserver ce hmm. que ci président lay a bi la dignité nationale xam que ko hmm. devant les étrangers Nous nga ñëw ci dëkk bi nga xam ne de jàmbur nga ñëw ñu jox la këyitu gan Manam carte de séjour loolu que ci mais au Sénégal Nous avons fait dañoo ne étranger bi yow ñëwal defal Étrangers, neex étranger ñi jugee Guinée Cameroun Gabon Guinée Bissau fep ñeu tok fess fi en milliers le pire mooy ñu ne ko état état état waron leen waroon waron len jox këyit këyit bo xam manam day protéger étranger bi day protéger sénégalais bi mais joxuñ ko ko dañ ko ne fais ce que tu veux vis comme tu veux ñom ñu ñeu fi nak ñu may len jamm ils n'ont pas de problème avec la gendarmerie ni avec la police. Nous, Sénégalais, nous avons un problème avec la police et la gendarmerie. Mais étrangers un problème avec la Pour Le prix de l'hospitalité L'hospitalité, oui. Mais l'hospitalité mm-hmm. est hypocrite. Là. Vous savez l'obstacle hypocrite là. Yo, Cameroun, mm-hmm. visa, moi le fais carte de séjour, moi le fais Toglo, team travail, il est Centrafrique, c'est pareil, Gabon, c'est pareil, Yéné de Gibori, c'est pareil. Nous, mm-hmm. ils sont ici en milliers et de façon gratuite. Fayoun Chidara. Et ça m'a dit, man nag yow ak ñun ñëpp on a nos empreintes au niveau de nos commissariats respectifs mm-hmm. étrangers yi ñoom ñëpp ñëw amuñu seen empreinte si ci commissariat yi loolu sécurité la quelle est la sécurité ça nga jóge si da ñëw toog xoolal hypermarché exclusif boo mm-hmm. début c'était des sénégalais qui travaillaient là-bas ñu ñëw mixé leen ak ay guinéens guinéens ñoom soo loo leen fay moitié salaire sénégalais ba ci suuf dañuy jël mm-hmm. ñu dem ba ben instant ñu dem ba fexé Guinée yi ëpp fa. ñu wo leen réunion voté lu leen ne da ngeen di nangu maanaam 45000 francs de salaire ku ci gëna a liggéey ñu yokkale 5000 francs wala 10 000 francs manam muy 50 ba 55 maximum. guinéen ñoo nekkoon à majorité ils ont voté oui sénégalais yi desoon ñenn ñi ñoo ñàkk pexe nangu parce que amuñu pexe ñenn ñi ñoo gedd dem loolu où est l'état quand les Indiens viennent au Sénégal pour investir parce que dañu xam ne fii am na clientèle dañu xamné ne fii nii ay doomu sénégalais yo xam dañu wara mëna a jënd ñun lu ñuy jaay légui kon manam ñom seen intérêt taxawna mm-hmm. légui pourquoi état du leen imposer na leen so leen waree jël manam 10 personnes 8 yi ba 9 yi Sénégalais lay doon mais état bi dafa ñak fayda ba nga xamné que day bàyyi indien yi ñëw at seen doomi indien jël doomi guiné légui doomu sénégalais ñi écarté leen. mais est-ce que est-ce que est-ce que yàkkamti amul aussi dans la mesure où on a un nouveau régime bo xamné Google, pour déployer comme il faut maintenant mettre en œuvre sa politique. je vais te dire une chose que mhm. du question oui que tu wax nga ko mhm. dama Ousmane Sonko défendre projet Le projet je dama que politique migratoire amu ci lenn une politique migratoire mais maintenant, surveiller fortifier la surveillance sur nos frontières mm. pour nous pour pour lire Mais non politique migratoire dama une fenêtre parce que dama ci aussi yenn après développer parce que pour euh, ci ponk yu am solo euh, sénégalais mais euh, pour nous, toujours un peu ci li nationalisme bi ngay euh, donne nga soutenir Ousmane Sonko en tout cas sur le débat public euh, Mon panafricanisme voté, y a un nationalisme est-ce que une terminologie dañu une différence. si a une différence maanaam mais nañu mais a une différence différence moi, c'est le panafricanisme. Madame, vous da ngay maye lenn ci souveraineté. est-ce que am veux dire day par exemple. nga am sa kër. Mm-hmm. am na buntu am na palanteer. Mm-hmm. léegi panafricanisme moom mooy maanaam sama kër am na bunt mais bunt bi ubbeeku na ku mu neex na dugg. mooy comme li ngay expliqué tout à l'heure. sànq euh, voilà léegi nag nationalisme xam mooy lan. mooy kër gi am na buntu am na palanteer. mais am na gardien boo xam ne moom dina xam kan mooy dugg ak kan mooy génn. pour filtrer mouvement ah, mooy sécurité. ñoom ñii nekk ay kilifa nii ñoom ñoom ñii. je le dis bien ñoom ñëpp ñu nekk ay ministre député et tout ak ñu ko fi mës a nekk ñëpp. Mm-hmm. tey bañ li may xeex ñoom koo seen kër. ay garde du corps ñoo fay taxaw ay nervi ñoy taxaw seen kër bala ngay dugg dañuy eh, eh, eh. mané la ay déglu ma ay nervi ñoo fay taxaw bala ngay dugg dañuy noter carrément kan mo ñëw ces kilifa gi ñu dem annoncer kilifa gi dëkk non lañ koy gérer dëkk su su ku bokku ci dëkk bi suy ñëw day annoncer wu ci frontière bi aéroport port wala fu ko neex ñu xamné ne diw daa bëgg dugg si bi ñu poser la ay question mhm. France bi ni France xanaa xamoo fi mën nga am visa France nga dem ba France am nga visa de nga dem ba France policier bi policier bi lay contrôler pour nga guen. mu poser les quelques questions Amna nu ngay répondre mu nek dans le doute Hein? dañ lay déporte dañ lay délo Sénégal Té pourtant am nga visa bi on l'a fait à un ami bo xam dafa ñëw ba France mu dal ko j'étais obligé d'intervenir parce que dafa ñëw fi la jëm mu ñëw ba fofu nonu am yimu wax yo xam du dëgg gaay nako ko bon on t'a met ci ñu duggal ko ci prison ci prison aéroport bi parce que lolu sécurité la. Mm-hmm. mais so waxe ñu naan la ay non racisme le xénophobie le tout légui dama lay suñu faire. Mm-hmm. gis nga dëkk ala kulli ali tant que yaa ngi étranger yi am liberté. Mm-hmm. am gratuité manam moy lepp yomb leen. sa doomu dëkk ce niveau de vie day wañéku je le dis et je l'assume te loolu amul kenn ku koy weddi. wàññeeku comment. maanaam yow soo ñëwee. oui sénégalais bi maanaam tàmm liggéey. Mhm. war a mën a fayeeku cent mille. étranger bi nga xam ne moom charge amu ko. étranger bi nekk ci marché. ci marché lay fanaan. Mhm. yow mi en tout cas. dama ko gis. Mhm. étranger yi fiy jaay mburu ci biir kiosque bi la fanaan. étranger yi fiy jaay boutique ci biir boutique bi lañuy ñuy fanaan. raar na ci étranger mu ñëw. appartement te ce vous manam dañ fay buuju yow nga xamné charge wala charge pour moi sa as sa dund vous askan dafa yomb suñu jank yi nga xamné ci di da ngay xol ay boy malien boy burkinabé boy yëpp ñoo fi ñew suñu jank yi suñu cinquante mille ñom ñoy ñew manam boy bi vous koy fay vingt mille parce que mon ci kër gi lay ci gi lay lépp charge des lool day wañi askan te li ni ni nii ñi ñuy dirige xam nañ ko de c'est que ils veulent s'entêter <clears throat> ci ben panafricanisme bo xamante ne madame, ça n'augure rien de bon ça n'augure que le désordre et la désorganisation la preuve ku fi jël sa camionnerie, muy camionneurs yi muy ñu yor seen oto normal nga Gambie nga Mauritanie nga Guinée nga Bissau nga dugg fépp di nga xam ne panafricanisme amul da nga koy xam ci tali bi. parce que euh, jafe-jafe yi ñu ah bien sûr jafe-jafe ñu fi daj. da ngay Sénégal est beaucoup plus da ngay da ngay obligé so soo so jëlé soo jëlee par exemple ay auto nga wara dugg ci zone tu es obligé d'être corrupteur. da ngay joxé corom da ngay joxé da ngay da ngay wéccé wecceeku ay 2000 2000 deux xam nga corruption daganul. Mhm. daganul ci kuy jël at kuy joxé yow da ngay obligé manam teg sa diine fële pour mën jall jàll frontière bi xam nga luy waral loolu. mooy CEDEAO laluwul ci deug CEDEAO gis nga lu mel ni CEDEAO su waree am dañuy woote référendum ñu ne ah Sénégal tey dañ leen laaj nag bëgg ngeen bokkoo ñu ne waa Guinée nag bëgg ngeen bokkoo waa mari nag bëgg ngeen bokkoo askan bi ñooy tànn njiitu duñ tànn askan mooy tànn décision pour dem CEDEAO askan moo ko ñun Sénégal amul kenn ku mës a voté CEDEAO CEDEAO récitation kese la dañoo njudd fekk ko fi CEDEAO CEDEAO CEDEAO mais nañu remonter le temps xool lan moo sooxe CEDEAO askan sooxew ko te lu melni ni CEDEAO parce que askan su waré bokk beneen askan territoire. Mhm. askan moy décidé mais askan décidé wul Mali décidé wul Guinée décidé wul Gambie décidé wul Sénégal décidé wul suñu njit ño tok ci seen di bop ak tubaab bi di len xélal ñu def ko. d'accord te te xam expliquer Oui. te lool lu mu jur len kese la. Mhm. maanaam dëkk yi nga xam ne tané yeneen dëkk yi dëkk yooyu ño gënu son lu melni Sénégal ñun ño tané ay Mali. ño tané Guinée ño tané yépp motax mhm. ñun ño gëna son Sénégal dafa dem ba léegi dafa nek ben genre mbalitu Afrique dans la mesure où ñepp dañ fay ñew touru te ñi fi ñew touru ñepp bu fekkon sax sen dëkk dafa am guerre man mën naa comprendre lool non mais amul sen dëkk amul ben guerre dañoo bañ sen dëkk qu'est-ce kese rek que Sénégal ne moom la ñu mën a amee bañu mais na état bi am responsabilité am fullaak fayda mëna fexé fexe jitu ci réew mi parce que tant que wul def carte de séjour du dem.